sunu papa Thion yal na ko yàlla xare àjjana. Mhm. ko jaale sama wali balaago. di ko jaale suma bopp. ndax Sénégal benn bopp la kenn mënu koo xam. papa ñu gis da nga am ñetti sens. fréquenté nga bu fi jógee. ban gàllankoor la mën a bu bëri parce que. mag nee nañ du yàlla mais yàgg na ci yàlla te ku bi téere yi nga xam ne coon bala ko way na ko muy génération ba li ko gën a suufee donc je pense que nañ ko ñaanal xare ko aljanna euh, man ngi nuyu